ñi nga xam ne noonu lañ ko tàmbalee ci di ko yaxal ci arab ñu dem ba yaxal ko di ko yaxal ci nas français dem ba koy yaxal ci anglais waaye dem ba koy yaxal ci wolof rawatina euh, muy làkk wi nga xam ne fii gox bi ñu nekk moom la ñuy jëfandikoo moom lañ gën a xam moom lañ gën a mën a comprendre kon daal ci gàttal yaakaar naa ne loolu mën naa ko tënk ci gaaral téere bi ci ay kàddu yu gàtt lu ci waaye bëgg a xam rek lu gën a yaatu lu gën a faram bu euh, fexee ba jot ci téere bi incha allah euh, dana ko mën a am na mu ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdou waxtaan wi am na solo lool leeral yi tamit mat na sëkk wax dëgg fi yàlla ku ko doon topp ku nekk di nga xam ne euh, indee nga ko ca nam gën a jote kon ñu ngi ñaan yàlla fay la yiw bu baree bare te gën laa dëgëral gën a la yokk xam-xam bu baax a baax ba lépp li nga yéene liggéeyal ku tedd gi suñu borom defal la ci lu kawe njort ci barke Cheikh Khadim kon xam naa duñu guddal lool lool waaye li ci ëpp solo rek li nga xam ne leeral na ko muy mën hëjjee bi nga xamante ne si muy méthode bi nga xam ne moom lañ liggéeyee téere yi te loolu nag jàpp naa ne mooy li ci ëpp solo ndax euh, bindu téere moom jàpp naa ne yomb na waaye nag fexe ba mu doon loo xam ne euh, ku ko natt ci nattuwaayu xam-xam yi euh, mu fees dell palaasam kon jàpp naa ne loolu mooy li ci ëpp solo te yaakaar naa comme ni mu ko leeralee ku ko déglu di nga xam ne téere bi wax dëgg fi yàlla ñi ko doon liggéey wax dëgg fi yàlla jox nañ ko àqam ba mat sëkk kon di ñaan yàlla fayal ñu leen fay yu gën a màgg te fulal leen ko làq leen ko fi yàq yeggul xam naa du ñu guddal loolu comme que waxtu wi dafa xaw a euh, jege timis ji xam naa dañuy jëbbalaat kàddu gi rek soxna euh, sëñ Cheikh euh, sëñ May bu ko defee mu continuer yaakaar naa ñu tëjandi ba beneen yoon di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di fàttaliwaat rek comme ni ko seen Abdou Khadir waxe téere bi képp koo xam ne bëgg nga ko soo wëree ci maktab yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi soo demee nañ ko fekk boo demee Dakar tamit Masalik am na fa boo demee Thiès tamit sëñ Mémé moo ko moo ko fa yor kon loolu tamit ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp képp koo xam ne daal bëgg nga ci ay leeral comme ni ko sëñ Abdou Khadir waxee boo gëstoo téere bi bu fexee boo fexee ba mu tegee ci sa loxo su boobaa jàpp naa ne li nga ci bëggoon yëpp mën nga ko ci am kon ñi ngi sant bu baax tey gërëm ku baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëñ Omar jërëjëf yàgg euh, sëñ Abdul Qadir ci exposé bu am solo bi ba pare bari njariñ ko ndax loolu mooy li ëpp solo ngir ki koy topp man koo jariñoo téere bi moom damay wax ni ginnaaw liggéey bi ko daayira muqaddamatul xidma liggéey dafa am beneen ndimbal bu mu doonaat ci biir murit gi rawatina gëstukat yi ndax mel na ni ñi ngi ciy sant ay liggéey yépp daf ci am ay mawduwaat yoo xamante ni téere bi indi na ko indi ko ci indi woo xamante ni jéggi dayo gi ëpp na solo li ëpp solo na ci am mbind nga xam boo koy bind en tant que ab gëstukat danga am ab delluwaay te loolu mooy li ëpp solo ci am mbind bi ci des tamit ñu am lu am solo luñ liggéey muy doxinu wees mooy ñi waxtaan mën naa am pareen saa bindi jafe leen jamono jàpp leen wala yenn say gëstukat bu mel ni Sëñ Abdou Khadir nga xam buy waxtaan ay niqaat associé rek lay teg te wax dëgg yàlla waxtaan wa dana am solo lool ñu bëgg nag waxtaan woowu des ci murit gi waaye des ci biir daayir bi te ku ne xam na ni ni ko arab yi waxe rek ma kutiba xarra wa ma xafisa farra loolu nag ñu liggéey ci liggéey wu am solo bari luñ koy gis ci dawaayir yi mooy sos ay lijaan yoo xamante ni dañuy dégluwaat waxtaan wi bind ko loolu moom liggéey bu am am solo la euh, gis nañ ko ci daayira muqaddamatul xidma kon loolu ñoo ngi leen di sant rawatina lijaan yi nekk woon di déglu waxtaan wi ku ne xam na waxtaan déglu ko rek dafa jafe rawatina nag déglu ko di ko yaxal bu waxtaankat wi indee ab aaya nga dem jën wëri ko bu waxee aw wax woo xamante ni dafa jëm ci tasawuf wala luxa lu ci nekk nga indi ko su waxee wenn delluwaay ci mbindum sëriñ bi nga indi ko loolu moom ab liggéey bu am am solo la waaye kiñ koy liggéeyal xam na ko te mën na ko yàlla na leen ci fay muy Cheikhul Khadim kon mel na ni téere bi moom njariñ nji bari na jërëjëf sëñ Abdou Khadir euh, yow tamit ñu la ci sant bu baax ndax mel na ni liggéey boobu yëpp yow yaa ko doon coordonner sa bopp ndax dégg nañ ba nga koy exposé ca yoon wu njëkk wa li ci ëpp solo mooy nit ñi bu ñuy liggéeyee rek dafa am ku ñuy jébbal waaye ki koy tansiix ba mu jàppandi ba ñëpp mën koo gis loolu wax dëgg yàlla mel na ni yaa ko doon def kon ñoo ngi lay sant ci turu muqaddamatul xidma waaye di sant tamit ci turu mboolem ñi nga xamante ni dañuy liir bi kon ñoo ngi wàcce foofu kàddu gi ngir waxtu wi di wax rek ni dañuy pause ba. vingt et une heures incha allahu taala ñu mën a commencé waat ngir depuis dix heures ba léegi ñu ngi demal ci jataay yi ngir nit ñi ak presse bi tamit mën a noppalu euh, ba vingt et une ñu ñëwaat ci yeneen i téere ak yeneen i exposé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu